gannaaw kàdduy tuuma yi nga xam ne lenn ci jigéen ñi nekkee ci parti APR bu Mbàkke yëkkati woon nañ ko teg ko ci derub kii di Mariama Ndiaye madame Mbàkke ñu doon wax ne financement yi nga xam ne ministre de la femme indi na ko ci département Mbàkke ni mu ko séddalee teguwul ci yoon madame Mbàkke ak ñi mu àndal doon nañ amal ab jano ak way taskatu xibaar yi ngir ñaawlu moom mi ne mbir ministre de la femme def na sept département coow amu fa ñëpp dañ koo tàcc tëggal koy sabar defal ko lu nekk ndax dañoo am lu ñu musta mu ñëw ñu yiw ñuy toog ñëpp préparé li xewoon démb rek ñu di ko ñaawlu ndax Ndeye Saly Diop Dieng moomul loolu Ndeye Saly Diop Dieng yayoowul loolu ndax ku xool sama kanam xool Daba Macky xam ne man ku am man ma jaay la yaa ngi def lu la neex du ma jaay kenn te ku bëgg président Macky Sall di ko liggéeyal xam ne maa ngi sa kanam ku ko yàqal maa ngi sa kaw aw ma ci lu ma ciy tiit aw ma ci lu ma ciy ragal ña doon ña doon manifester démb manifester ay financement ndaxte bu doon financement ñoom ñëpp am nan gone yee ba ca mag ña Moustapha Diop 1 million Moustapha Diop ña ko leboon fayuñu Mame Mbaye Niang ñooñu ay 3 millions ay cinq ay 2 kenn fayu ci waaw maanaam i màggal Marème fay Sall am na ñoo xam ne seen wari màggal du dakk cent 200000 te ñun ñi kenn am ko ci taxul ñu mars kon nag ngeen xam ne marché ba doonut kaalis marché ba problème mu place bii la Sadaf kenn nag xiifu pour ndaxte bu fekkoon ne am-am rek la marché bi du am démb ndax ña doon marché démb lan lekk ñun ñu toog fii lekkuñu xaaj ba te kenn marché mu am lu fi xew démb démb mu am lu fi xew ay femmes yi manifesté pour lan mais ñaar ñi ngeen gis si kanam ku ne am nga ci financement yii ba du yóbbu ci seen compte ñaar ñi njëkk a jël parole ku ne am nga ci financement yi ba ubbi jël ubbi ba ubbi seen compte ña nekk ca gannaaw nag ñu gis leen xam leen dañoo leb ci 700000 yi critères yi yomb ci lañ bokk fayuñu bor du am rakk nañu waxante dëgg may wax ak nañ dellu siwaat xel yi ministre de la femme wax na ko ba mu demee Kayel la mu wax duma ko del du ma dellu siwaat wax na ko démb ba mu demee Kayel nañu fay bor yi ñu amul woon am di wax rek nag ni ñoom gënuñu ñu fi toog te amuñu financement. ministre Ndeye Saly Diop ministre de la femme ñëpp amul PDS amul APR amul feneen kon nan joxante loxo boole xol yéenante jàmm te xam ne kenn mënu fee def dara sans ñëpp kenn amu fi loo fi imposé ken ak koo mën a doon. su fekkee nag dafa am ñoo xam ne li président jox Ndeye Saly joom muy président des femmes Benno Bokk Yaakaar du au niveau national daf leen déranger ñuy seet ñeneen ñuy utiliser nañ ko wax ñun duñu ay xale ma gi jëm lañ fu waaye it waxe xam nañ ko. nañ arrêté seen ñi ñuy def ak menacé naan su ma demee ci président mënuñu fay def dara fii mënuñu fay def dara ëpp ñu fi nit ñi fit ëpp ñu leen mbooloo gën leen a jàng gën leen a xam li ñuy wax te ñoo ngi set wecc blanche comme neige yoralu ñu banque dara amuñu lu ñuy nëbbu kon nañ am suñu fula am suñu de ku nara a yàqu ñu defante ko yow bu dug baat vocal ñun nag kenn xamuñu ci violence dañu waxoon rek dañu expliquer comprendre dinaa leen wax na répartition yi wax naa leen ko amul benn département bu nekk benn commune bu nekk ci département Mbacké te jotoo appui 16 communes yëpp ku nekk am nga appui 80 millions la la ministre Ndèye Saly Diop Dieng jox waa waa département Mbacké leen 40 millions jël leen may naa leen ko ku mës def loolu 40 millions yi fay leen ko amul intérêt kenn topp leen dara ñu dañ cee am par force lan mais kon mës a gis loolu mos a gis loolu et puis ñëpp mënuñoo amandoo na ñuy am tey boo liggéey ñeneen am te it bu leen fàtte ñu liggéey ci base de critère la ñuy liggéeyee mais bu ñu xool rek naan opposition bi opposition bi ci la ñu bokk authentique yi ci la ñu bokk ñi soog ñëw ci la ñu bokk ñëpp ci bokk. njiitul SEDAF bu Mbàkke dellusiwaat na ci financement yi nga xam ne ministre de la femme indi na ko ci département bi ak ni nga xam ne noonu lañ tànnee ñi nga xam ne ñoom ñoo am ci financement yi. ciblage dafa métti mooy tànn ndax ku tànn rek. yaa bàyyi mais bu ñu xamee ne ñëpp ñoo am tànn bi fay métti la tax sax tànn bi yomb ci ñun tuuti dafa am ay critères yu ñu tegal nii ngeen di tànnee nii ak nii ngeen war a tànnee bi ci njëkk mooy wax naa leen ne ministre la femme bi mu ñëwee di financé département Mbacké la njëkk financé ca gaar ba ngeen sañ ko toog mu financé leen yéen ñëpp auteur cent soixante million la joxe cent soixante millions maanaam téeméeri millions ak juróom-benn fukk mu jox ko jigéen ñi mais financement la woon ku leb da ngay fay mu am nag ñu jàmbaar lool maa ngi profité fii nag pour sant la commune de Taïf waa Taïf zéro faute ñoom lañ leen jox dañ koo fay ba matal mais jigéen département Mbacké ba léegi waa Touba ak Mbacké am na ñoo xam ne zéro faute dañoo fay loolu yëpp ministère de la femme moo ko def mais tax na ñu appui yi di ñëw premier critère mooy ku amoon borteloo te fayoo bokkoo ñooñu dañ leen a éliminé d'office kon nag ñooñu bokkuñu ndax lebal nañ leen fayuñu te am na deux ans beneen bi mu ni nañ ko jox ñi nga xam ni dañ doon liggéey moo xam ne bu ñu jógee dana leen fekk seen place ku ci mel ni Maguette Badiane mais dama bàyyi ma fen dañ koy tànn fekkewu ko ku démb mi seeti na ko place am la ko fekk muy salon de couture yi maanaam ku am bërëbu liggéeyukaay mais commerce bokku ci jënd ak jaay bokku ci ci loolu la cible bi ñuy ciblé defar mu yombu lool ndax laaj ñu benn dossier tey damay profité wax ni financement yi du pour groupement pare c'est individuel muy financement yu neex nag appui yu neex yi ko président sant mu def ko jigéen ñi. maanaam dañ leen jox téeméeri junni may la juróom fukk yi <laughs> juróom fukki yi ngay fay te amul benn intérêt. léegi nag coow lan moo ko waral ciblage bi ñu pare ba tànn ba tànn ba pare dañoo dem ci préfet toog ak moom ak su préfet yi ak le représentant des maires ak les service technique à savoir le développement communautaire le service de l'élevage le service du commerce. le service de chef des renseignements généraux bi rendre compte au niveau national kon ñu li ñuy def dara lu lëndëm amu ci bi ñu paree ba ma def sama proposition ba jox ko pour mu valider ko parce que moom mooy valider mu ni ma maire yi souligné ni quota bi nga jox Touba ëpp na nañ ko wàññi yokkal waa monde rural bi wàññi waa Mbacké yokkal waa monde rural bi mais ñun ay kilifa la ñu am administration la ñu nekk dañu exécuter dañuy exécuter c'est ce qu'on a fait ba 45 la ñu mujj jox Touba jox. arrondissement de Kayel jox arrondissement de Taïf lépp nag sur la supervision des sous-préfets ñoom ñoo defar seen liste yónnee ma ko ñu valider ko liste boobu moo dem Dakar ñu delloo siwaat ma ko ci loolu la ñu wut yónnee ko banque ba ñu commencé woo nit ñi defe naa loolu leer na. ci ndaje moomu responsable APR yu jigéen yi nekk ci département bi ñu bari teewoon nan fa ñu mën ci ràññee kii di honorable député ay Gaye soxna Njóoba Mbàkke Daba yi wala sax soxna Maam Say Mbàkke ñoom ñooñu ñi ngi yëkkati ay kàddu di woote ak booloo ci mbooleem jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci département bi tey liggéeyal kii di président Macky Sall ñun ki suñu biir nañ yéenante jàmm kenn ku nekk yéene sa morom jàmm te kenn ku nekk xam ne la sa morom yor yow yaa ko yor kenn ku nekk la xam ne la sa morom am lay li yàlla yàlla ba muy préparé fekk na ñëpp kenn nekku fa fi mu ne nii dañuy mottali rek mais lépp yàlla moo ko dogal ba pare ndax ministre de la femme ba mu ba nga xamee ne ñëw na ci euh, département ministre bu de la femme ak léegi kenn xamul ñaata yoon la ñëw Touba te heure bu ñëwee ñun jigéen ñëpp lay woo kenn ku nekk mu wax ak yow kon li nga xam ne mooy cër bi ñu ko war a delloo mooy ñëpp ñun ñun ñëpp ñu joxante loxo ànd nekk benn di doo di dóorandoo wax sa lool mooy suñu intérêt ñun waa Touba li nga xam ne moom la ñuy ñaan te moom lañ bëgg ci ñëpp mooy ñun ñëpp ñu ànd autour d'une table ñu toog waxtaan suñu waxtaanee trouver les solutions yi nga xam ne mooy tax ñu ànd nekk benn ndax kenn mënul dem bàyyi sa morom te division bi ñu benn njariñ li ñu gënal te gënal ko moom mi nga xam ne mooy suñu kilifa mooy ñu ànd nekk benn kon nag benno boobu ñun ñi ngi ciy woo ñëpp ñu ngi bëgg ñëpp ñëw ñu nekk benn àndandoo di yëkkateendoo di dóorandoo ndax loolu mooy intérêt Touba. il faut ñuy yokk di boole ko fondement bi ñun ñëpp ñu jëm kaw ñu mën a am tabax. kon ndey Saly Diop Dieng dafa ñëw dégg na xam ne ne coow bi ci département bi ñëpp yëg nañ ko moom mu ne xaaral ma dem xooli samay njaboot comme ni ko président Macky Sall bëggee président Macky Sall dafa bëgg ñu bennoo nekk benn bokku ndey bokku bàyyi ndax nee na wat gaal ak yëgoo te lu ñaan ñu lu ñaar mën kenn lu kenn mën ñaar ko ko dàq Ndeye Saly Diop Dieng ñëw ne xaaral ma dem xool bëgg a toog boole ñun ñëpp waxtaan ma ne président Macky Sall bi muy séddale dund bi sax def na ñëpp mënuñoo am yàlla mi séddale sax joxul ñëpp dafa jox ñi xañ ñii ñii gàtt ñii gudd ñii amuñu dara ñii di yelwaan ñii di saraxe ñii di joxe ñii am lu tuuti ñu am kon nag yàlla moom bu fekkoon bu ñuy mere nañ mere yàlla ndax mooy joxe man de nee naa amul kenn ku yor dara ba ma xeex la wala ma contre la bokkut ak nag am lu ma naqari bokku ca mbir ma bëgg caa wax wax ca la taxul ma contre kenn ndax yàllaay joxe man bu ma jox sama bopp wala may jox madame kese Sedaf bi man maa koy jox sama bopp waaye laa ko ko jox niveau bi mu amit man munu ma koo yor dama ko yor partout yoru munu ma koo yor yoruma niveau bi du ma doose du ma jaay taar du ma du ma jaayi tubaab déggu tubaab jàngu ko kon nag nit ki la mu yor nañ ko gunge mu def ko dégg nga mais nañu yaatal bokk ndey bokk baay nañu ja Ndeye sali Diop bu dikkee di ñu jàppale moom bi mu toogee ci ministère bi ñun la njëkkër safar ne leen man Ndeye Saly Diop Dieng xam nga lu ma bëgg donta man ma toog fi dem dama fee bëgg a def lu fu benn ministre mos ta def bu ma ci amul dara itam dégluñu li mu dugg fii ci biir Touba benn ministre mosu ko fee def ministre de la femme li mu fi dugal ci ay financement itam kenn mosu ko fee def kon yeyoowul lii problème yi nag dëkk yëpp la am du Touba rek la am politique a mel noonu lu ñuy séddale bu matul kenn ku ne da nga ciy gis sa bopp da nga ciy bëgg a gis sa bopp loolu mooy indi problème yi waaye xam nañ ne sédd ah, daanu dajul suuf mais mi ngi xalanko kon nag ñu ñaan ñëpp delloosiwaat seen seeni xel ñu àndandoo nekk benn toog autour d'une table ndax nag guerre mondiale sax ci table la mujj ñu waxtaane ko nañu waxtaan ndax ñun ñoo bokk lépp liñ bokk ñu ko séddoo muy Serigne Touba kon nag ak ñun ñëpp te benn objectif lañ am mooy liggéey le président Macky Sall ci ak fàttali yooyu le financement mi ngi bokk ci li nga xam ne président yëkkati na ko ngir jàppalee ko askan wi ci mbas mii di Covid 19. di xam ne rek ne financement yi mi ngi toll ci juróom-ñett fukki millions ñu jagleel ko jigéen ñi nekk ci département bu mbakkee